asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na ba teg euh, juróomi simili xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fa cité Bellevue wuyootul turam euh, fii ci ndakaaru ndax daanaka 2005 ba léegi at wu jot euh, ña fa dëkk dañuy dund ci ay jafe-jafe yu méttee métti ndox mi daf fay fees dell daanaka ñaari meetar lay toll saa su nekk bëri na lu mu yàq foofu am na ñu bëri ñu bàyyi seen kër dem feneen. ca Ndukumaan moom ñii di euh, baykat yi am mbégte la ñu def ci nawet gi ak ni mu tàmbalee ndax li ñu nemmeeku mooy tool yi rafet nañ jamono ji ak ji lii leen jaaxal képp rek mooy yenn ci euh, toolu euh, mboq yi nga xam ne sax yi ñoom ñoo ko songu jamono ji benn weer ginnaaw lakk bu metti bi amoon ca marché uh, bu Ourossogui ña ca ñàkkoon lu bëree bëri toog di xaar ba tey ñoom jaaykat yooyu le nee nañu li ñuy laaj mooy ñaar fukki millions yi leen njiitu réew mu joxoon nib dimbal fan la jaar waaye itam fan la ñu toll ci projet tabaxaat uh, marché boobule uh, xibaaru tàggat yaram coupe du kanam tuuti léegi léegi ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziaree ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak euh, mbirum mbëkk mi euh, muy téeméer ak ñeent fukk ci ay nit yu euh, bëggoon a jël gaal dem fële ca Espagne ñoom ñëpp ñu ci tegoon loxo bàyyi nañ leen jamono ji ñoom kenn rek ki ñu téye mooy convoyeur bi maanaam ki ñu fayoon seen xaalis ngir mu yebal leen ci gaal yóbbu leen loolu mi ngi xewee woon barki démb kon diggante laa ak Nianing lañu teg loxo brigade bu Nianing ak bu Fimela ñoom ku ca nekk ci sa wàll yaa doon def opération ba ñu teg loxo eh, nit ñooñu ñu jàpp ni bokk na ci ay sénégalais waaye itam ay bissau guinéen ñu ànd ceeg capitaine Awa Gueye di commandant compagnie gendarmerie bu Mbour ci leeral yi capitaine Awa Gueye ñu ànd ak moom ci kanam tuuti mu dellu si ci téeméer ak ñeent fukk ak lu topp uh, ci nit ñooñu ñu teg loxo te ñu bëggoon a uh, dem fale ca Espagne ñu dem fale ca bët saalumu réew mi rawatina ca Sédhiou ak élément brigade régionale stupéfiant yi nekk foofu ñoom uh, dañoo teg loxo lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci kilo yi sinébar ñu ne ci ay tool yu kusi nekk lu toll ci fanweeri kilomètre ca Sédhiou ginnaaw ab dàqante bu doon am seen digg ak samba yooyu moo tax ñu bàyyi. yi seen euh, yamba boobu tollu ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay kilo ak euh, ñaari moto yëf yi démb ci guddi la xew am na enquête buñ ci ubbi bu ñu sukkandikoo ci suñu ndaw li ñu teewal foofu ca région bu euh, Sédhiou di Bakary Konté ñu dellu si fii ci ndakaaru ni ñu leen ko doon waxee sànq cité Bellevue atum 2005 ba léegi ñëfa dëkk ñu ngi dund ci ay jafe-jafe yu méttee méttee saa yu tawee li ci mujj rek ñu ne ndox mi daanaka booy xool ñëw na ba booy xayma ñaari meetar am na lu bëri lu yàqu muy seeni i matériel oto ak yeneen ak yeneen ñenn ñi dañoo dem ba bàyyi seen kër yi ndax mënatuñ faa dund ñi euh, dëkk foofu ne nag euh, boo dafa mel ni saafara si lu yomb la maanaam ñu ut ab système canalisation ndox mi bu ñëwee jaar fa mën a dem bàyyi di leen la jël reportage Pape Fara Gningue ak Thierno Laurent Mendy. Belleville tur bi dong moo fa des ndax neexatul gis ak i gët gannaaw tawu àjjuma bi nga xam ne jaar na fi ñëfa dëkkee nag lu jafe lañu dund ba léegi ndox ma mu nga fa loolu nag naqari ñi nga xam ne ñoo fa ne. Il y a eu 126 millimètres d'eau. La cité ne peut pas contenir malade. on est tous malades tout dans la cité. ñu ngi koy dund depuis 2005 à l'époque le président Ablaye Wade moo nekkoon njiitu réew mi euh, ki nekkoon premier ministre son excellence l'actuel président Macky Sall ñëw na fii bi mu fi dugg Zodiac moo ko fi dugal moo ko fi génne image yooyu la amoon bërki dem ak démb yëpp Zodiac baa ngi woon fii di génne nit ñi parce que nit ñi ndox mi dafa duggoon ci kër yi ba presque deux mètres nit ñi seen salon yëpp yàqu na loolu nag li ko waral mooy ndox mu bari mi nga xam ne nii jóge na zone de captage traversé centrale de distribution Sénélec bi lépp converger te Bellevue. kër yu fees ak ndox tali yu yàqu ñàkkum courant. li nu mel nag tax ñu bëri daal di jóge seen kër dem ci yeneen i bërëb Ah, ñu ngi sàkku ndimbal ñu ñëw jàppale ñu parce que affaire yi daal vraiment yéemi na quoi famille bi yëpp jëlee nañ fi dem nañu parce que mënuñu dund tamit ci condition yi parce que yëf yi dafa euh, pour jëlee xale yi ñu mën leen évacuer ak yooyu noonu waaw te tam xam tam ci ay xale ndaw bu dee ñun ay mag lañ sax garaal ndox mi boo dee ndox toll autour ni comme nekkatul loo xamante ni c'était si facile. te ñoom sax jàpp nañ ne ngir faj li nu mel yomb na lool. Cité Soleil moo nu gënoon a metti foofu mais bi ñu ko reglee jël def fa benn canal boo xam ne day jël ndox mi di ko yóbbu géej ah boo fa demee tey bu tawee doo fa gis ndox loolu war nañ ko mën a def cité bi bu dee sax jamono ji am nañ tuuti jàmm ña dëkkee foofu ca cité Bellevue fi mu toll nii nag seen fit dalul ndax nag nee nañ bu dee indi ñu ci ay saafara fi ak yeneen taw yi di ñëw seen dundin dina gën a métti te jafe-jafe rek lañuy am ci mbënd mi. Euh, taw bi am na ñu ci gis seen bopp muy euh, yenn ci baykat yi euh, boo demee fële ca Ndukkumaan ñoom nee nañu la ñu bay niñ ko gisee ci tool yi daal lépp baax na lu ci mel ni dugub bi gerte bi lépp daanaka léegi mu ñor waaye ñoom producteurs yi li ñu bëgg mooy gouvernement bi bu demee ba war a wax kilo gerte bi ñaata la na ko yóbbu ba téeméeri dërëm li leen jaaxal kay jamono ji mooy yenn ci mboq yi sax yi ñoom ñoo leen tàmbali di songu reportage foofu Omar Ndiaye baykat yi nekk ci diwaanu Ndoukoumane jamono ji seen xel dal na ci nawet bi li ko dale ci dugub gerte ba ci mboq lépp jamono ji mu ngi aw ci yoon. fi mu nekk nii yëpp a ngi focc wax dëgg yàlla dugub dugub bi yaa ngi focc mboq maa ngi ci foog naa ne. mais gerte ngi aussi samp na parce que man am naa benn waay bu nga xam ne dégg moom muy Ibrahima Badiane moom sax nee na ma ne teelu ñorom bi fi mu nekk nii moom mu ngi ci yëy donc yooyu yëpp. ane yàlla daal moo ñëw ak ay mbaaxam mais ren vraiment yàlla def na ci tawféex. ñoom baykat yi ndëkkumaani li ñuy sàkko ci nguur gi bu ñu ci yeggee mu jënd leen kilo gerte gi téeméeri dërëm. si maa leen di wax aussi ñu farlu ren parce que état dafa nekk ku nga xam ne ren gi fu nekk sànni na fa euh, karawaas dégg nga maam pour joxe xaalis ñi nga xam ne dégg nga maam ñoo doon laaj kon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ëpp ci réew mi gën a euh, nekk ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole vraiment war nañu gestu ba nga xam ne ren kenn umpalewul ne. liñ daf ci gerte gi ak mboq mekki bi euh, produit cher na cher gu nga xam ne bu ñu ko jëndalee lu gën a néew euh, téeméeri dërëm dana nekk problème donc maa ngi ñaan sama mbokk béykat yi bi ñu fa àggee ñoom it nañ mobiliser ñu laaj comme ni ñoo euh, gars yi doon laajee. fi mu nekk nii nag li jaaxal béykat yi mooy yenn ci mboq yi nga xam ne da leen a yéex ji ay sax ñoo sonal mboq mi ba jur jaaxalee ci yenn ci baykat yi. bi daal mooy ay ay sax ñoo nekk si biir. Mm-hmm. sax yooyu nañ dañoo nekk rek lekk proxu mboq bi mboq boo xam ne commencé gu la focc fu mu toll nii rek am nga am nga am coon waaye bu si xas bu focc la fu mu toll nii moom saye moom hmm. moom nekk moom moom dara attaque gis gis nga nu mu defee ay bën bën hmm. ah mën na sa indi tolof tolof yu bëri de moom war a baaxee di ko baaxee kor loolu daal mooy jafe-jafe moom hmm. suñu mbay mi daal loolu moom mooy sax moom day naan gàncax gi ndax si kii bi lay topp xobu xob yi da koy lekk te da koy bënn prox gi daal da koy dagg lu bëri. ma gënee ko ñu si jàppale daal. loolu sax moo law ba ci diwaanu Koungheul ci dëkk bi di Idda Mouride waaye fi mu toll nii fii ci diwaanu Ndoukoumane lu soxal gerte gi tàmbalee mbereng dugub ji tàmbalee focc yenn ci mboq yi njëkk di tàmbalee boot ñuy dundee yaakaar say sàkku nag ci nguur gi mu bàyyi leen xel ci kilo téeméeri dërëm. jërëjëf euh, Omar Ndiaye dañuy dem fële ca bët gànnaaru réew mi rawatina ca Wourosso gi xam ngeen ni marché central ba lakkoon na benn weer ci ginnaaw ba fi ñuy wax ak yéen ña ca loru ñu ngi xaar bokk na ci li ñuy xaar ñaar fukki millions yi ñu ne njiitu réew mi moom moo leen ko jàppale woon waaye itam li ñu leen wax ne dañuy tabaxaat euh, marché boobu euh, ñu ngi def seen kéem kàttan ngir fexe ba jógaat ci jafe-jafe yooyu ñu dundoon foofu ca Matam la ñuy dem fekk ji fa Ali Bandel ak El Hadj lakk bi amoon ci marché central bu Ourossogui dedduwaat nañu ca bërëb ba bañ fa yeggee nag décor bi daanaka dara soppeekuwul lu dul kon ay débris ak ay kanting ngir tàkk ba jeex tàkk moo fa nekk ñi nga xamante ni ñoo di seen ay borom di jaaykat yi commerçant yi ak jaaykatu légumes yi daal di mujjee ku nekk ak sa pexe ngir kon dalig sab njaay yaakaar jógaat moom dafa xaw métti kii amuñu kenn ku ñu dimbali mais heureusement ñoo ngi taxale gis nga place bi yow gis nga gisoon nga ko. dese woon bagage bàyyi fi sama doom bi pour après julli mu jaayal ma ko mais lépp yàlla yóbbu na ko ñaari place benn baa ngi benn baa ngi alhamdulilah sant yàlla julli ci yonent bi dem ak suñu doolee rek ak suñuy mbokk. may la nga dem boo am. su su lii dalee su leen dalee sant yàlla rek mais nag ba ma ba ma koy commencé aw ma woon soutien finalement débrouillé rek la ma bu débrouillé boo yàlla andi ma moo ne sax nag ci bi muy ñëw ngir massawu sinistré yu bëri yi maire Ourossogui di maître Moussa Bokar Thiam ma ñëwoon nag enveloppe ñaar fukki million yii mu ne njiitu réew mi moo ko jagleel sinistré yooyu la. président dëgg naa ko ci télé bi de. mais ba léegi fi ma toll nii eh, su dul ndimbal yàlla gisuma dara. mais gis naa ni waaw vraiment vraiment ñëw naa ñëw naa sama ànd jàmm yi ak sama client yi ci boppam. ah gisaguñ ko de gisaguñ ko de gisaguñ fii cinq francs bu ñu joxe ba man bokk pour man gisaguñ. naka nga def ba reprendre. ah yow mi bokk ak ñeneen dama jàppale may defaraat place bi nii ndànk-ndànk rek. ndimbali jóge si nguur gi nag li ñu déggagul li sunu maire wax monsieur le président jox na vingt millions mais accès guñ ci ñun ñu ngi xaar nag. mu safaanoo lool nag ak li ñu doon xaar ba léegi jaaykat yi ci marché bu Ourossogui ñu ngi xaar ndimbal bu am solo gën a mën a soppil xar seen liggéey. comme ni ngeen ko gisee marché central bu Ourossogui nii la nekkee boobu ba léegi gannaaw lakk-lakk bi fi amoon ci guddi tabaski bi ñu génn tey jii mu mott weer gannaaw ba léegi daanaka dara soppeeku fi nañ ko waxee ci biir reportage bi gisuñu ndimbal bu jógee ci nguur gi waaye itam li nga xamante ni moo di seen condition de vie mu ngay gën a metti ndax gis ngeen ko ay bâche la jigéen ñi jël takk ko ay poto ngir kon mën a def seen liggéey fii ci marché central bu Ourossogui may fàttali mooy marché bu ci région de Matam ndax mu ngi nekk ci biir Carrefour bi Ali Bandel ñang ñu waxaat ci euh, li ñu junjoon sànq muy euh, ñi bëggoon jël gaal yi dem ca Espagne te ñu teg leen loxo diggante Fimela ak Nianing mi ngi xewee guddib samedi jàpp dimanche euh, brigade yu Nianing ak yu Fimela ñoom ñoo def ku ca nekk sa wàll say patrouille ba teg leen loxo moo di opération boo xam ne kon liggéey bu ñu def ñoo ñu teg loxo ñenn ñi fii la ñu fekk baax fii ci Sénégal ña ca des ca gine wala sax Guinée Bissau dañ ciy déglu capitaine Awa compagnie gendarmerie bu Mbour. ci xeexu mbirum immigration clandestine gendarmerie nationale daf ci jël ay matukaay ci loolu le élément brigade proximité de Nianing di def patrouille dal ci ñaari kaaru Njaga Njaay yu def juróom benn fukki nit ak juróom ñett ñu doon dem Fatick pour dem jël gaal gi dem Espagne donc ñi mi ngi def ay doomu réew mi ak ñu nga xamante ne ñuy dëkk ci sous-région bi enquête bi nag ñu ngi koy wëyal di ci jokkoo compagnie Fatick pour jàpp ñi nga xam ni ñoo organiser voyage bi. ni mu ko waxee ñi organiser voyage bi bokk na kenn kuñ ci jàpp moom ba léegi mi ngi ci loxoy yoon waaye ñoo ñu bëggoon dem te ñu tegoon leen loxo bàyyi nañu leen ñu dem ñu dem fële ci Ziguinchor député bi ñu fal yàggul dara bu département bu Ziguinchor di Guy Marius Sagna moom joxe na kàddoom ne dina amal benn marche national mu ànd ci ak étudiants euh, yi génne ci centres régionaux de formation en santé yi li ñu bëgg mooy ñu dugal leen ci euh, fonction publique bi euh, ginnaaw seeni formation nee na lu yàggul dara sax dina dem ci préfecture bu Ziguinchor ngir joxe ab lettre d'information maanaam yëgal leen marche boobu le ñu fas yéene def gi Marius Sagna yëkkati kàddu yooyu ci jàkkaarloo bi mu doon amal ak taskatu xabaar yi ànd ak étudiants yi bàyyeekoo ci juróom yi nekk fii ci réew mi ñu déglu ko Euh, ci euh, micro ci micro lu ëpp weer a ngi ñu ngi ci grève ndax lan ndaxte ñoom njàngaan yi dañoo ne dañoo bëgg a yaram bu gën a mucc ayib ngir askanu Sénégal ci naka seen revendication ñaar la benn bi mooy ci centre yi ñu taxawal fa li ñuy woowee système LMD ñaareel bi mooy ñu ngi laaj li nga xam ne moom mooy képp ki nga xam ne génn nga ci école yooyu nga génn fa ak ak sa lijaasa muy diplôme d'état état du Sénégal jël la dugal la ci hôpitaux yi ci poste de santé yi ak ñoom seen ci sant de santé yi. dañoo bëgg gouvernement du Sénégal ak président Macky Sall au lieu ñuy dël xaalisu Sénégal di ko jëndee ay nit pour ñuy voter au lieu ñuy jël xaalisu Sénégal di ko séddoo seen biir di ci noos di ko détourner. nañu recruter infirmier yu doy sage-femme yu doy assistant infirmier ak technicien supérieur yu doy kon ñii ñii bu ñu génnee seen formation nañ leen dugal ci hôpitaux yi nañ leen dugal ci centre de santé ak ci poste de santé yi. conférence de presse bi bu doyulee fii ak ay fan dinañ xool ñun ñëpp étudiants juróom-ñaari centres régionaux de formation en santé ak askan wi ak ñun député yi naka la ñuy defee benn say organiser benn marche nationale. marche nationale ndaxte dañoo bëgg askanu Sénégal am wérgu yaram bu mucc ay Euh, keneen ku ñu fal itam mu nekk euh, député muy euh, Pape Diop xam ngeen ni moom moo jiite woon coalition boobu di bokk gis-gis liggéey moom ak leader yi mu àndal ci biir boobu boobule muy Aliou Sow ak Mamadou Massali ñi ngeen gis ni ci nataal bi ñoom nag ñu nga ca yoon ba jëm fële ca diwaan wu sell wa di Touba Mbacké xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bachir Mbacké war na leen a dalal ñoom Pape Diop ñuy xaar bu baax a baax taxawaayam ci biir assemblée nationale bi lan lay doon ak yeneen ñaari député daanaka ñoom ñoo war a gindi askan wi xool euh, fan la ñuy euh, faree wala dañuy yem fa ñu yem euh, du ñu ñàkk ñu ànd ci ak suñu ndaw li ñu toogal foofu ca diwaanu Touba Mbacké di Pape Balla Gueye ci yeneen jotaay xibaar ñu des ci wàllum politique ba tey ci département bu Dagana fukki commune ak benn ya fa nekk coalition bi ngànk nguur bi daanaka moom moo fa jël raw gàddu gi responsable ya nekk ca Ross Béthio ñoom ñu ngay rafetlu nee na ñu militant yeeg seen taxawaay ngi woo njiitu réew mi mu def kéem kàttanam ngir fexe ba suqali boor boobu rawatina mbayum ceeb bi ndax jamono ji dafa xaw a tumuranke Ibrahima Diop kenn ci responsable benn Bokk Yaakaar foofu ca Ross Béthio ci micro Ousseynou Diop. ndax onze communes moo fi nekk onze commune yëpp onze communes yëpp Benno Benno moo ko gagné par conséquent dëgg yàlla nag yaakaar nañ ne war nañ am neexal jusque là département Dagana benn ministre la am yaakaar nañ nag war nañu dolli ñaar wala ñett. te yaakaar naa le plus jeune du département xam nañ ko duñu nag doy na doy na borom xel du ma ci jaar donc ñu bàyyi ñu mbay la ñu bëri bu jëlee ñaari ñi wala ñetti ñoo gis mbay li ñu dundee donc mu góorgóorlu mbay mi jàppale euh, suñu suñu mbokk agriculture yi ci accès au financement accès ci terre accès ci ndox ndox yi donc ñu remercier di féliciter le président de la République ci yërmaane boobu mu am déclencher un plan ORSEC pour soulager nos population loolu ñu ngi ko ci sant di këram sama ancrage ci Benno Bokk Yaakaar ci côté sama xarit sama promo sama soppe Faly ñu wax ci xibaaru euh, biti réew ak euh, secrétaire général bu rassemblement du peuple de Guinée arc en di parti bu Alpha Condé euh, secretaire général bi fii ci Sénégal moom mu ngay naqarlu bu baax a baax dogal bi militaire yi jël foofu muy tas FNDC di Fonds national pour la défense de la constitution mu koy naqarlu te nee na xelam sax dafa dafa tiit maanaam ci jamono ji ak Guinée ak ni ñu teree société civile bi ànd ak woy yenn ci ay woy politique bëgg a ko lànkale mën na indi njombe ci réew mi moom euh, nag euh, Frahira Condé muy artu bu baax a baax colonel Mamadi Doumbouya mu ne na xoolaat bu baax li muy def ak fi muy teg tànkam moo nekkoon ganu Infos ñu déglu ko ak Chérif ja le combat va continuer parce que mënuñu dissoudre ba pare FNDC bi ba pare jàpp seeni leader mettre leen en prison mais actuellement ñi ngi def ay jéego yoo xam ne daal mooy le 17 dañoo woote euh, benn manifestation boo xam ne nii c'est sur toute di du territoire Sénégal euh, guinéen Doumbouya dafa tiit fu mu nekk nii il a peur il a peur parce que xam na ni lii comme ni ko olof yi waxee lii raam ñag bi la jëm te Dumbuya tiit na tiit boo xam ne ni xam na ni FNDC bi bu leen bàyyee ñu commencé di wàcc di def ay manifestation leneen mun na si eh, rax daal loolu daal la tiit moo tax mu ne il faut mu dissoudre FNDC bi. jeunesse bi foofu tàmm nañu tàmm nañu loolu amuñu dara lu ñu ciy ragal mais il faut que mu xoolaat bu baax li mu def. FNDC bi na ko bàyyi place am ñu leen di autoriser ñuy marche sinon dina jur loo xam ne ni ah dina regretter moom lu tax mu doon sax di dissoudre FNDC bi. ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diaw Cheikh maa ngi lay nuyu. ñu wax ci coupe du monde Qatar bi match d'ouverture bi nag dootul nekk ci Sénégal FIFA indi na ci ay coppite. voilà comme euh, na mu demee woon 2002 Sénégal ndaxte joué euh, match d'ouverture bu euh, mondial 2022 fële ca Qatar ndaxte FIFA moom moo andi ay coppite donte bés bi nga xamee ni la Sénégal waroon joué ak Pays-Bas changé wul 21. Euh, novembre lay doon waaye euh, CAF moom moo andi euh, jongante bi nga xamee ni moo war a dox ci diggante Qatar ak Équateur le 20 novembre mu nar a nekk match d'ouverture mondial 2022 ci leeral dañ ciy teewlu Mamadou Ndiaye. ab cérémonie d'ouverture bu am solo la ñu fas yéene amal léegi nag match bi njëkk ci coupe du monde bi mi ngi dox ci diggante Qatar bi pays organisateur bi fas yéene cee jàkkaarloog waa Équateur voilà euh, jërëjëf euh, Mamadou Ndiaye euh, ci football la ñuy des ba léegi ñëw fii ci Sénégal ak Coupe d'Afrique bi nga xamee ni Coupe d'Afrique des clubs tirage bi amal nañu ko démb. champion bu Sénégal di Casa Sport moom nag tirage bu xaw a jafe la am ndaxte algérien yi di JS Kabylie euh, ñoom lay euh, dajeel ci tour préliminaire Ligue euh, africaine des champions Jaraaf moom bi nga xamee ni moo waroon représenter Sénégal ci coupe CAF nag ñoom bokkuñu ci tirage bi ñu bari jàpp ni peut-être ay problème administratif moom moo tax lu ne mel la am dañ ci teewlu Cheikh Sadibou Diarra Casa Sport dina jongante ak jeunesse sportive bu Kabylie ca Algérie ci tour bu njëkk ci préliminaire ligue de champions 2022 2023 club bu Ziguinchor bi mooy dalal ci ale bi bi ñu jàpp diggante 9 ak 11 ci weeru septembre bii di ñëw jongante retour bi ci Algérie ñu ngi ko jàpp diggante 16 ak 18 septembre ci weeru septembre bi ba léegi ku ci kalifie di laale ak ki gagné diggante ASCO bu Togo ak FC Nouadhibou bu Mauritanie ci ñaareelu tour préliminaire bi jogante yooyu ñu ngi ko jàpp ci pàcc bu njëkk ci weeru octobre bii di ñëw ASC Jaraaf moom kenn gisu ko ci tirage au sort tour préliminaire bu coupe confédération africaine bu football bi lu ci mën a nekk club bu Médina bi la fédération sénégalaise bu football tànnoon ci kaw Étoile Lusitana bi ñàkk final coupe du Sénégal bu ren ji tari bu jara ci coow loolu nag ñu ngi communication officielle bu fédération sénégalaise de football ak sax bu jara ñu wax ñu lan moo tax ba euh, yëf yi demee ni Sénégal lu am représentant ci coupe CAF euh, ñu wax nat ci euh, football fële ca bitim réew ak finale super coupe d'Europe nar am tey ji ci ngoon fële ca Helsinki nar dox ci diggante vainqueur Ligue des champions Real Madrid nar a ak ki gagné Ligue Europa di Eintracht Francfort fort euh, fële ca euh, France nag AS Monaco du bokk ci Ligue des champions bi nga xamee ni nañ ko amal ren ji ndaxte euh, ñoom Crépin Diatta dem dañ leen éliminé ci troisième tour préliminaire Ligue des champions ci seen diggante ak PSV Eindhoven ñu daan leen ñetti bal ci ñaar ñu jeexalee ko ci doomu France bi di Benjamin Mendy moom nag jamono ji ma ngay jàkkaarloo ko juge fële ca Angleterre ñu koy àtte ci euh, coow viol euh, bokk na suñ suñu ko compté nag lim bi mat na daanaka juróom ñaari cas de viol yoo xam ne dañ ko ko jiiñ waaye jour Manchester City bi nag dafa plaider non coupable maanaam daal dafa bañ ni liñ koy euh, jiiñ defu ko. Tidiane Diaw ba suba ak jàmm incha allah ci info matin merci Cheikh léegi dañuy jàll ci ponk bu mujj mu yëglekaay li ñu xëyee tey ak El Hadj Assane ak toogu yëfa waa yeewi askan wi am na muy demee la tribune xëy tey waxtaane yéenekaay bi ne waa Sonko Khalifa Sall ak waa PUR def nañ ko nag ab tong-tong ci juróom fukk ak juróom-benn di toogu yéen fa am yéenekaay bi ne taxawu Sénégal am na ca fukk ak ñett waa Pastef am fa daanaka lu fu lu ñaar yu waa taxawu waa PUR ñoom bu Serigne Moustapha Sy am ca fukk ak ñaar direct news moom Lamine Thiam bu PDS la xëy xamal ñu ne candidat la ngir jot ci toogu président assemblée nationale moom moo fa def ca penc ma fukki at ak juróom-ñeent fukki at nekk nekk it ki gagné saa su ne Kébémer yéenekaay bi xamal ñu ne waa wàllu ga mu bokk ñaar fukk ak juróom-ñaari toogu lañu fa am ci assemblée ñaar fukk ak juróom-benn ngir waa PDS wote yi nag ak na mu demee woon ak ñi fi doon yuuxuy sàcc ba fii tekk la ñu def amu ca ku yóbbu kalaame ba démb ci talaata ji ci kanamu conseil constitutionnel source a mënu ko xamal yéenekaay bi ne mandataire yu yeewee askan wi amu ca ku cay jokkoo ak waa conseil constitutionnel waa walluy yi tegaat ci suuf njort gën a amoon ngir département bu Louga ci wàllu PV yi source a ne résultat yu mujj yi kon su fekkee ba ëllëg ci alxamis tey ji amul ab kalaame yooyu résultat dina génn Sud Quotidien moom xëy waxtaane lay xaar nag assemblée nationale bay ñëw di quatorzième législature bi ci wàllu taxawal askan wi ngir yorin wu sell ak it képp kuñ fi dénk koppari askan wi nga leeral fa nga ko jaarale bi Birahim Seck bu Forum Civil ci yéenekaay bi di sàkku ci député yu bees yi ñu débloqué dossier yi nga xamante ni président dani woon da caa teg concoom professeur Ngouda Mboup bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom di sàkku ci ñoom député yi ñu xayma plan orsec yi fi jaar ba fii moom jàpp na sax ni looloo war a doon yitte bu njëkk ca pénc ma mbootaay président nag di benn bokk yaakaar ak deltu ginnaaw gu miti gi ci wàlluy toogu ci assemblée le mandat defab laaj ne mbaadu moom président la ko ko jural mooy ñu ko wër ñenn ci ñoom di niti fitnaaku ay yéenekaay bi gis ne kon faaw président baatrewaat carte yi nde ginnaaw local yi ginnaaw législative yi ak it opposition bu xel mépp ne ci këpp yalwaanam dolli ci askan wekki soxlay dundam faaw moom njiitu réew mi mu génne pexe yu mag ya su bëggee génn ci boobu wërngalub safara penc yi di HCCT ak CSE au conseil collectivité territoriale ak conseil économique social environnemental nag su woon rek ci Moundiaye Cissé wala professeur Babacar Gueye fii la nekkoon la ñuy wax Moundiaye Cissé njiital ONG 3D ci source aané HCCT kuréel la guy dëxëñ xaalisu réew mi dong ndax yokkul dara wala boog lu bari ci démocratie bi ca wote yi jëm ci moomeem penc sax dañ ko waroon toxol ba acteurs yi waxtaane ndax dañu ko fee war a jëlee am déet professeur Babacar Gueye ba tey ci yéenekaay benn bi ne HCCT ak CSE njariñ yamu am képp mooy di fat ay farandoy politique professeur ne réew mi ci boppam ay institution lañ war a taxaw xalaataat bu ko defee ñu garde ca yi am njariñ képp kàcc-kàcc la xëye yéeni kaay bi ne ginnaaw Ousmane Diagne ak Papito Kara kuñ naan Jules Aloïse Faye lañ ca mujjee jàpp sëñ Diagne ñu toppee ko xibaar yu wérul sëñ Faye moom le quotidien ne lañu ko jàppe mooy ab virement banque bu lalu ci fraude bu juróom fukki millions ay tiis ci libération ak benn liir bu ñeenti weer naka noonu tout tànkub juróom-ñetti at ñu ñàkk seeni bakkan ci dal yu daanu ca anit yéeni saar ak ndox ma njaboot yamu laal toxal nañ leen dalal ca CM bu bi jëwriñ ji dénk mbay mi professeur Moussa Baldé mooy ganuk Le Soleil tey mu ne campagne bi ak na mu dooree baax na macha allah ndox mi wadd na fu ci bari ci réew mi ca daanaka sax gox yenn yi lañ fa daa am dañ fa am ren ci jamono lu fu lu ñaar jàpp ñett wàllu njiw mi it ngir béykat yi yokk nañu ko mu ne rawatina njiwam mboq meeg ceeb bi ca yeneen it wàjjikuwul engrais bi la muy jafe-jafe ci àddina yokkute fukki milliards ci budget bi may na ñu am lu tolloog lañ daa am ci at yi wees ñu jeexale làmb jeeg sunu làmb mi gis ne Balla Gaye 2 dëggal na ne mooy njiit li leader ci arène bu Sénégal ndax yi ñaar ci li ko amaloon solo ci combat bi keroog diggam ak Gris Bordeaux wax na it ci li waraloon bi mu jëlee coup bu njëkk mu dellu ginnaaw physiqueam nag dina mu toll ak dayoom mu ne ku ne mën nga ci am sa commentaire leneen ci observateur yi di accident bi nga xamante ni Wally Seck waykat bu mag bi ak i gaayam def nañ ko ca Maroc ginnaaw ab concert foofee waaye suñu borom def na jàmm moom Wally Seck mu génn ca ak i gaañu gaañu yu sew seen wata moo këpp ay yooni yoon laata muy dal ci feu rouge. jërëjëf El Hadj Assane euh, fi lañu yem ci xibaaru digg bëccëg yi sant leen gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi ak ñun rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci kanam tuuti ngeen ànd ak euh, Pape Cheikh mu woyal ci euh, midi plus di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.